أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب بسم الله الرحمن الرحيم بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bonjour mes élèves wala bonsoir maa ngi am mbégte ci ni ngeen di ànd ak ñun jotaay bi tabarakallahu ak njàng mi am na solo lool di jéem a ijjantoo ko boole barki démb wala jamono ji ñuy daje génn ci juróom-ñetteel ñoo ngi woon ci xarfu ta tey mooy suñ juróom-ñeenteelu daje incha allah ñu koy wax ci arab tisa wala dars tisa kon dañuy daay continuer rek suñu xarf bi ñu nekkoon muy xarfu ta xarfu ta soo defee nii defagoo ci dara tuddul dara boo defoon ci suuf ba lay doon waaye ta ci la ñu nekk ci la ñu nekk ci la ñu nekk gisoon nañu tuutun bi weesu tuuti ci bi weesu ak taabutun te nag dañu ñëw daan ne ta tu ti aca ta tu ti ta tu ti dañuy jàpp ne fu ñu gisati lu mel nii rek muy man ak yéen ngeen jàpp ne mooy ta fu ñu lu mel ni rek mm-hmm. man ak yéen mm-hmm. jàpp ne mooy tu fu ko gisat jàpp ne mooy ti ko defee kon bu ñu defaatee nii muy ta ñu defaat nii muytu tu ñu defaat mm-hmm. nii muy ti dama ko bëgg a doubler tan waaye tan moom il faut nga doubler ko nga defal ko lii moom rek nag moo koy soxla pour nga duble ko il faut nga defal ko lii moom rek nag moo koy soxla tun du ko soxla ñaari mas rek la da ngay rek tin du ko soxla ta tu ti tan tun tin gis naa sax ne sama sama man laay moom fi ne mi ngi tàmbali di ànd ak ñun ci jotaay bi ba macha allah mi ngi liir lettre yi nga xam ne jot nañ ko weesu kon xarfu ta to ti tan tun tin lu tax kii ñu ne ko tan dañ ko duble ñaari maska la ñaari maska la lu tax kii tam moom tam dañ ko doublé kii lañ duble fii rek kii lañ doublé fii kii biñ ko doublé tan waaye moom rek mooy soxla ki ñi ci des ñëpp duñ ko soxla xarfu ta la ñu doublé muy tan tu ñu duble ko muy tun ti ñu duble ko muy tin kon mbokk yi am na ñaari lettre lettre mm-hmm. ba mm-hmm. ak lettre ta lettre mm-hmm. ba bi mu nekkee fii ba bu bi lañ waxoon léegi ta dafay ñëw ñu ne ta tu ti kon ñoo niroo nu ñu leen di bindee ak nu ñuy taxawee waaye son yi rek moo wute ba mu nekkee ba ba lañ waxoon ba bu bi ban bun bin waaye bi mu nekkee ta léegi ta la ñuy wax tu ti tan mm. tun tin bu ñu del see beneen incha allah indi buñ ko bëggoon xëcc niñ koy xëcce maanaam te mooy tiire ko buñ eh, ko bëggee xëcc ak lettre bii nuñ koy def buñ ko bëggee xëcc ak bi bii nuñ koy def buñ ko bëggee xëcc ak lettre eh, masque bi kon ngeen baal ma nuñ koy def xam na am na ci yéen sax ñoo xam ne bi may wax loolu ne buñ ko xëcc bi nu ñuy def seen xel dem na ci ba ñuy jàng baa biñ ko fii seen dem na ci bu ñuy jàng buu ñuy toll fii seen xel ci bu ñuy jàng ti kon ci leetaru ta ci la ñu nekk ta tu ti tan tun tin su ngeen jàngee tam nga xam ne léegi ni ma ci jànge dafa gaaw waaye mën na gaaw ndax soo ko xëccaatee ni ko pap du di enregistré daf lay joxaat mu tàmbaliwaat mu lay jàngal ba suba ca ngoon vraiment da nga ko war a allah jaa ngeen jëf ci njàng mi jaageen jëf ci nab-nab ji dars baa nga noonu mooy suñ juróom-ñeenteelu dars bii di ñëw incha allah dinañ indi leneen lu bees ci araf bi nga xam ne ci la ñu nekk ndax ñaari araf la ñu amagum mooy xarfu baa ak xarfu ta yàlla yàlla sàmm leen te sàmm nu aar leen te aar nu bonjour wala bonsoir ci fi ngeen nekk mes élèves et à bientôt أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب